asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee si yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV te nag euh, wax dëgg yàlla ñu ñëw caaro yi ñëw seet si nag koo xamante ni ah, <laughs> muy booy boo xamante ni gaa yëpp ko doon wër ma tase taseeg moom ñu fexe waa Wassare Lamb fas yéene waxtaan ak moom parce que dafa am loo xamante ni dafay amoon muy combat Alioune Seye 2 ak ñaq jariñ booy bii ngeen di gis ah, muy Aly Ndao <laughs> booy bi moo tax làmb ji amul. <laughs> ñu bari ñu bari nee nañ booy bi moom mooy yàq làmb ji ndax depuis lool wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñu ngi ko doon seet gisuñu ko ñun ñëpp ñu ngi doon xool fu mu nekk tey nag ah, wax dëgg yàlla ah, ñu fas yéene ah, leeral ak moom ay point muy aale aale maa ngi lay nuyu. Fane Modou maa ngi lay fay. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw di jégalu rek làmb. Mm-hmm. am na loo xam moom boo nekkee di wax di fàttaliku démb. day gën a yokk coow rek. waaw moom Alioune Seye dama koy wax rek làmb dafa am muñ quoi boo ñëwee si làmb moom boo teewul ndam rek da ngay muñ. ñun jugee nañ fii suñu combat ñu nag mm, général bu Fass. fu ñu dem ñu nañu ñu da ngeen di daanu te bañ demee yàlla dañoo may ndam. ñu xam ni yàlla moo mën si lépp. képp kuy ñaan da ngay ñaan si yàlla. waaw di wax ni moom ñaq jariñu jour boobu. Mm-hmm. bi mu ñibbisee moom nit ñi wax nañ ko lu ne. mais tamit man ni mu defee bu doon mën a noonu laay defee mooy daw bi parce que mm. waa géejawaay 40 personnes lañ dugal saakees bi mu ñëwee 3 personnes la dugal. Mm. liiru jaan bi mu ñëwee 3 personnes la dugal xam nga. yaa ko ñun ñàq bu demee si géew bi ñu dañuy toog si cumukaay bi xaar ko. Mm-hmm. kenn duñu yàqal. yaa ngi dégg. Mm-hmm. làmb yi nag loolu am fa noonu la mënoon demee. mais yow euh, tey yow yow yaa yoroon misigu ñàq jariñ. ñàq jariñu léppam maa ko yore. ah ok. combat ñàq bi ñëwee suba la maa ngi 1 million 800. Mm-hmm. sama sakos ma takkoon. bi may dem 100 francs topp barki Serigne Touba. 1 million 800 yëpp. 1 million 800 ay nit ñoo ma ko jox. ay jàppale ay ku si mel ni Soro Diop. Mm. joxe na liquide. keneen ak kaneen. Mm-hmm. Euh, Moussa daabo bu marché asalem mm-hmm. joxe. musala mm-hmm. la maire. ku mën doo fen ñu ngi lay remercier bu baax a baax sa loxo. baabu ndooyu tamit noonu. te ñoom ñëpp sa moom moo ma ñoom ñax jaruñu wóolu ma lool ay boy yu nekk Brésil. ku si mel ni Xaadim Ndiaye li mu yónnee gis nañ ko. Njoogu Mbaj keneen ak keneen gaa yëpp ay xaadim rës kooku moom dañ koy mention bien ndax ba ñëwee suba la làmb ji dafa ñëw yëkkati liquide jox ñu. mais yow xaalis boobu yëpp 1 xaalis boobu yeggul làmb ja. loo ci doon lu ma la xanaa. côté musique beeg yow. xaalis boobu doyul barki Serigne Touba. ok billaahi bi ñëwee ay bor lañ amee. billaahi wallaahi taalaahi. Mm, mais yow. wax nañ ko xam nga Père Khadim Samb ñu ngi koy nuyuwaale au passage. Ah. ñu ngi ko dégg mu ne mbër. ak hmm. encadrement dañuy waxtaan. waaw yow euh, sotti nga Alioune Seye mais yow euh, ba nga jógee stade. Ah. yow yow yaa yow yaay ruube ndax gis nañu nag wax dëgg yàlla bari dañuy ruube. dëgg ay am nañ ko. Ah. Sa Thiès ay Balla Gaye de suite hmm. mais su ruube moom daa feeñ. non hmm. c'est que jour boobu ni mu demee rek. man Alioune Seye 2 bi mu koy jub si di ñëw si moom. daf maa saaga. dalaa saaga. ma fayu ne ko yow bëreel te daanu. yaa ngi dégg. Mhm. mu xëpp ma ndox. Mhm. ma delloo ko mais sama bos moo feeñ. mais man su ma géntoon ni làmb ji noonu lay demee. Mhm. man du ma ko sax sotti ndax xam naa man li ma téewoon. mais est-ce que déewuñu la woon ne la làmb ji dañ koy ñàkk Tuubaa Mbàkke su woon ñax da koy dóor di ma ko raw la ñax di génneel après daan ko. looy wax ni barki Serigne Touba kon deret daf ma laa xanaa Alioune Seye 2 jour boobu loolu moo gën a sedd moom. loolu noonu moo gën a Alioune Seye 2 100 pour cent géejuwaay bi. moom moo ko wootee. suy bëree ñëppay ñëw nit ku baax la. Mhm. billaahi. Mhm. mais jour boobu dafa nelaw. fa la nelawee. mooy boo yoru làmb da ngay muñ. àdduna dafa am muñ. Alioune Seye moo la yoru làmb. yorul làmb ji Alioune Seye làmb ji nga yàq làmb ji Serigne yorul dara. su bëree woon ngay xam. Mhm. su bëree woon ñàkk mën na bëree 40 minutes du sonn. ñax njëkkeewul si làmb sport athlète la njëkk def. koofur bu doy la yore. saa kees bi ko ñax jàppee fii 112 heures mbéy mi doyul. saa kees dafa da ko daan. billaahi li ñax doon fowee bëree la ko daan muy ñàkk def nañ ko lu ne si làmb fii la bëreeg nongoloo daan ko trois fois benn tàkkusaan ñun yàquñu làmb fi ñu taxaw lañ taxaw mm-hmm. bi làmb jeexee dañoo génn dem bi mm-hmm. kon xam nga bu lii amee nañ jàpp ni erreur la mais bu ñu jël waa Caaroy rek mm-hmm. bëgg leen a def benn ay cuune quoi jël waa géej waa teg leen fu sori làmb ji bu amee benn lutteur rek lañ si dégg mu wax wax ju rafet muy Balla Gaye wax na si wax ju rafet dal leen waa géej waa yéen a nekk écurie bu mag mooy waalo yéen yéen waroon topp bañ a topp booy si lii. Bombardier tamit di ko remercier wax na si wax ju naaj. keneen ak keneen. Mm-hmm. ma lay wax ni am na yoo xam boo fi nekkee sax di wax day indi mer. mais yow ñu gis ni ba nga sottee gàllaaj gi ne ah. yow lañ gis quoi ndax ñun. ñëpp dañ ne booy bi yow yii booy yow. si man la ñuy gis. ñu ne booy bi euh, tur bi na te aale ah. aale ndaw yow mën a sant. dëgg la ñu ne aale. <laughs> waaw moo yàq laa ma ji après yow ñu gis ni. dem dem nañ ba benn instant sax ñu ne aale ah, dañ koo duma. Ah. xam nga ba yóbbu ko urgence affaire yooyu. mais est-ce que loolu dajoon nga ko réellement. si <laughs> luñ la wax rek zéro na lu des quoi. Ah, waaw. Mm-hmm. mais est-ce que tey yow amoon nga droit jàkkaarloog mbër bi di xeex ak moom. man mm-hmm. man amul lu ma ragal suma àdduna. Mm-hmm. mais est-ce que yow amoon nga ci droit. kan man amoo si woon droit. amoo woon droit dóoranteeg Alioune Seye 2 mais daf ma noonu dóor. Aliou Seye 2 mi ba doon daw wan ko ginnaaw su ma dóoroon si dox damay këpp moo tax ma jàkkaaroo bi muy xàcc laa ko roof benn loolu moo ko dóor moo ko gaañ mais danga koo kii déggoo ma de sama sama moo ko gaañ ko jamoo ko kon man du ma yor nan seet sax fii koñ bi sax du ma yor nan seet man mooy loolu mhm. mais man su ma àdduna ku ma dóor damay fayu ok kon loo mu def damay fay lii moo ko gaañ ok billaahi mais dama koy wax nay muñ rek àdduna moom buñ la jekkoo rek chaque jour doy del muñ mais après ba nga gisee deret mais wuyoowu ko Alizé non Baye Fall la de. déggoo lu ma li muy dund def. non Alizé mais tamit euh, xam nga lan laa mënul concevoir aale ah. tamit. ah, ah. ah. Alioune ñëpp xam nañu pour mu am combat problème la parce que gars yi ñemewuñ ko. Alioune Seye. préparé combat am. ba mu ay dernière minute. aare nga ñëw fekk ko nag sotti ko gàllaaj lu ma la xanaa Alioune lu mu def si combat bi ñoom def nañ lu ko raw ñun liñ dajale dafa bëri ñàkk moom li mu def. moom du la ko wax de. Mm. man li ma yoroon rek. Mm. laa xam. Mm. mais ñàkk moom bi mu encaissé xaalisam. ñun laaj na ko ñàkk jaru ñaata nga fayeeku. te gàtt gàtt fayeeku na 5 millions ba 6 millions. mais ñun bi affaire bi commencé tag nañ ne nañ teg 3000 3000. ñi nga xam ni bëgg nañ ñax ñu joob. ñu joob buñ kermesee rek kermes bi rek 300000 lañ am. 300000 bokkut ak jàppale yi ñëw. yaa ngi dégg lépp maa ko doon yore. lépp maa ko doon yore dem na ba sama mère dugg génn dugg a génn bi yow lan la yow lan la mën na ko dara. lu xew rek mën na ko dara. su ma ñëwee. li ma seex moom ñu dund ko ma génn di gaaw dem. mais biir enceinte bi li fa def yëpp benn benn booy def ko. déggoo lu ma policiers yi. loolu dara affaire mel ni mais après ba nga gisee loolu yow lu mu def si yow. man policiers yi ñoo ma dimbali bu du woon ak policiers yi dañ may gaañ. looy wax ni. barki Serigne Touba Mbacke jëlee remissaire bu baax a waax. commissaire bu Pikine. Mhm. bu du woon ak ñoom man dañ may gaañ ndax xam naa ne man du ma daw. ndax nga wax ñoom ñoo ma rawale. Mhm. ñoom ñoo ma rawale bu du woon ak ñoom ñoom booy géej waaye dañ may gaañ ndax xam naa sama waa koñ fii. Mhm. duñ bàyyi mais am na ñoo xam mu méttee dañuy jóg. Mhm. waaw mhm. di remercier waa commissaire Pikine bu baax a baax a baax. après police nga fanaan. barki Serigne Touba Mbacke seen loxo laalu ma bi ma demee foofu ñoom dañ doon waxtaan ak man. mais yow ba ngay jóge ci euh, làmb ja yow amoo benn blessure yow. déggoo lu ma la sadd yàlla. kenn laalu su ma ne laa aw ma damay fen mhm. ndax fukki nit ku kuñ séeq di dóor dix naa bu naa la waxee amul blessure xam nga ni loolu ay caaxaan la mhm. da ngay am blessure mais tamit xam nga rek yaa ma gën a xam mhm. gérer affaire góor la waaw beneen yoon ñu xam ne ñuy taxawee rek bu baax a baax après dañ cee feebar ñu yóbbu l'hôpital luñ la wax rek am na luñ bàyyi non non dañuy waxtaan quoi parce que gars yi yow ñu la bëggoon dafa léegi après dañ cee feebar après nga dañ may woo téléphone dañ fay bëgg a ñëw mooy leen nekk mooy maa ngi naa sama kër billaahi yow lii la fi indi sax ba nga gis ma nii sax du mm. neen quoi xëy na tey dañoo waroon gisee. waaw mm-hmm. ah, mais mm-hmm. boobu ak léegi. Mm-hmm. maa ngi sentir doy waar daal boobu ngay dégg dégg. ba tey mais léegi tey jii nii uh-huh. nice waaw. Ah. Oh. mais tey est bu démb doon tey di ko def. déggoo la mën a xanaa ñun kii jaral nañu lu ne. ok barki Serigne Touba Mbacke kii bu ñu dalee ànd du tey quoi. ñun ci koñ bi lañ dëkk. ñàkk du sum dara. dëkkandoo la rek dëkkandoo moo jur mbokk. Mm-hmm. billaahi bu ko neexoon bu combat amee tey jii nii. Mm-hmm. duñu ñu boolee kenn ba naan jàppante ak moom ak defal ak nii. Mm-hmm. ñu tamit ñu xamee nit ku ñu xam ku nekk euh, nekk na boroom xaalis ñu ne ko jàppaleel suñu mbër yi moom la am si koñ bi. xam nga. mu nekk ay xale ñuy weccoo ay kàddu mu nekk lu baax. moo tax moo indi lii yëpp. yaa tax jëru reliquat am de. loolu du dara. yaa tax jëru reliquat am. barki du dara maa tax jëru reliquat beeg. léegi xaalis fi lañ koy bàyyi boo ñaa aj nañ ko fi. Mm. bi mu ñëwee dafa téye làmb Ama Baldé noonu. Mm. dañoo téye làmb. Mm. loolu rek lañ koy gëmloo chaque jour. kii day téye ji làmb. mais tey niñ ko ajee ah, aj écurie ñax ajuñu ko. làmb lañu aj dangaa gis ku bëree. corona bee tax. waaw yow da gis ku bëree nga xam ne corona tax kenn du bëree. ndax la. barki sëñ bàmb kenn du bëree. déggoo lu ma la aju ñu ñax de làmb lañu aj moom. yow da ngaa baax rek. ñu dañuy mm. sant yàlla bu baax baax. 2 mm. millions du dara nit xëy na fii lakkale ci 50 millions. Mm. kooku moo gën a metti la. waaw mm-hmm. nga ay daa tax reliquat am ko. Mm-hmm. kii mun moom mënoon na jël reliquat man ma dee. am benn supporter am dee dina ko metti lu dina lekk xaalisam dina ko metti lu bu baax a baax. Mm-hmm. waaw bi ngi noonu. kon daal combat bi daal bokk na ci combat boo xam ne daf la marqué quoi. combat bi marqué na suñu histoire laa wax. combat bii nii. Mm. combat bii ñun xamoon nañ lépp nu muy demee ñun xamoon nañ ñax bu jàppee Alioune Seye Alioune du doy. il eh, ko teg ci mystique wala ci la Alioune Seye yow première interview bi nga ñëwee si koñ bi fii. open press ñax bi nga ñëwee dem open press. Alioune Seye 2 xam nga ne ñaari mbër yi sax bokkul. yii Alioune Seye tamit wopp waa mbëru géejewaay dar ko. Alioune Seye waay yow du dara. ah Alioune benn mbër la am. muy ga muy Balla Gaye. Hmm. mu nekk nit ku baax. Hmm. ñi si ñëpp duñ dara ay bisaab lañ. mais Balla Gaye la toxoo daal de Alioune Seye 2 moom mooy. Balla Gaye rakkam laa la wax saa kees moo ko daan jël bu gaaw. Hmm. te à part Balla saa kees moo si topp. daa la wax moo tax may la géej waay mbër amul fa kenn fa nekk mbër. muy Balla Gaye de nekk fa. kookoo gën a nekk bisaab ñëpp li mu wax yëpp dégg nañ ko. mu naan ay waa yi Gens ak nii moom ah, bu nekk boo nekkee porteur de voix bala ngaa wax da ngay xam man ba ngeen moom ñëwee fii bëgg ma seet si dama doon mer chaque jour. Mm-hmm. soo gisee waxuma nit bu meree rek warul wax daa war a bàyyi ba dal rek doo ko wax. yaa ngi dégg mm-hmm. lat moom dafa nelaw fii dafay am ay fans mais yàqu na ko. ndax lan fii am na fi ay mara yu koy ñaanal yàq na ko. yaa ngi may dégg nit waroo teel a wax mm-hmm. ay caara ay 15 man lañu ay nii nii nii di yoolee te bu dajee woon nag seng booy caaray day jóg. ndax la barki sëñ Bàmba day daw. billaahi. moom naa xam ne daa jël vol ñëw dëkkul fii dëkkul fii Mbij. daa jël bis ñëw ñaq fii la juddoo. waaw. ndax dëgg juddoo géejawaay. dafaa juddoo. ñun foowee nañ fii Mbij fii Mbij foowee nañ fa def nañ fa suñ lépp da dëgg juddoowu fa. waaw ah, mais bu fa juddoo tamit Alioune Seye juddoo na fa waaw yàq der ay ñun dañoo koo jam ak dañoo def nii loolu baaxul. nit ki bul bul gis dara rek. di mm. wax mm. nit da ngay teey. Mm. mais looy wax promoteur bi Père Khalif Samb. promoteur bi dañ koy jégalu rek. man après combat déglu naa vidéo am yi mu si wax yëpp. di ko rafetlu rek. xam nga di ko wax ni moom sant yàlla daal parce que affaire yi eggoon na fu sori. après mais moom moo la wax parce que ñàkk moom moo la wax pour nga sotti ndax yow mënoo jékki-jékki rek sotti gàllaaj te amoo ci ndigal. kii lu ma wax. Hmm? man maa sama xel. damay xool mais ñàkk la ko wax. ñàkk waxuma dara. ñàkk moom pare na ñun ñàkk. Hmm. suy bëree ma xamal la. mais ñàkk pare woon yow da nga ma wax la rek bul ma waax quoi Fatma Dia. da ngay tey waaxuma la ñàkk suy bëree. buggul sax ñu dugg ci biir géew bi danaan génn leen génn leen kii dafa bëgg xaalis buggul ko dagg. Alioune Seye nag daa yàgg da il faut nga tiital ko de Alioune Seye moom nii rek ngeen moon def parce que Alioune Seye daan naan la nii rek. ngeen moon hmm. du dara. dangeen ngeen du dara. barki Serigne Bamba du dara. Aliou Seye première signature bi bu ñëwee fekk ma si bunte bi ma taxaw. Hmm. bi mu ne ana ñax ñu ne ko dugg na dana xanaa ñi ay dëmm lañ. loolu deuxième signature mu ñëwaat. Hmm. ana ñax ñu ne ko dugg na mu ne xanaa ñi ay dëmm la ñii moom mun ma leen jax fenn. loolu Aliou Seye wax. maa ngi si porte bi taxaw RTS2 première signature jàkkaarloo bi. ok maa ngi si porte bi xàmmeewu ma. bi mu hmm. ñu ne ko ana ñax mu ne ko ñax dugg na mu ne xanaa ay dëmm lañ. billaahi mais gars yi ñëpp lañ waa Ahlou Lamb ñëpp yow lañ dal. waa man la ñuy dal ma la ñuy dal parce que jour euh, mois boobu noonu làmb amoon na coow. Mm-hmm. amoon na biir wi. Mm-hmm. moo tax ñu may dal. Mm-hmm. waaw mais nag di jéggalu ak lu làmb yëpp yëpp. di jéggalu waat ñëpp ñëpp ñëpp di leen wax nit. xam nga mooy loolu daal. nit matul quoi nit matul. Uh-huh. doomu aadama laa rek. Ah. te nit ku dul juum amul suñu xamoon nii lay demee. Mm. ñun duñ dugg sax si biir géew bi. dañuy bàyyi. Mm. ñax kese xëpp bi boppam. Mm. jàpp ko daan ko. duma ko duma yi metti ba pare daan. moom Alioune xam na bu baax li tax mu daw. déggoo lu ma la xanaa. Mm-hmm. ñun jigéen nañ fii ñu ne ñu da ngeen di daanu ñu dem ñax daan ko jële bu rëy barki Serigne Touba te jour ba bu ñëwoon bu ñu daanoon dañuy muñ toog. Mm-hmm. moo tax ma ne nit da ngay muñ. Mm-hmm. Baye Fall bi muy wootee nekkul si moom. Alioune Seye di Baye Fall xol bu rafet la yor Bamba du dara bisaab xam nga bisaab bu weex ah. boo ko sottoon sa yére bi du tax fenn mais Alioune Seye moom la Alioune Seye moom xol bu rafet la yor Baye Fall la déggoo loolu moom non Baye Fall la man xam naa ni Baye Fall la moo tax mayeen la Baye Fall woote nekkul si moom hmm. déggoo lu ma bu nekkee Baye Fall nga ne Baye Fall Baye rafet na xam nga yéene nit ñi jàmm mi ngi tette gaay yi yow hmm. mun nga sol sa yére bi hmm. te gëmoo yére bi ngay sol yëre tubaab moo la arrangé mooy ay tubay ay moo la arrangé moo tax ma ne la li ngay woote nekkul si moom kontaan nañ ci lañ lan ngay tàggatoo. ñàkk bu amatee combat. Mhm. lu gën a piir lii mooy ñëw. comme nan. lu gën a piir lii. comme nag barki Serigne Touba Mbacke. yow kon kenn yow yow dañ laa aj sax. déggoo ma de. yow dañ laa aj man. à ah, ma déggoo la man dañ ma aj à vie. man sama yaay bëggul sax may dem si làmb. dootoo ñëwaati de mais ñax bu amatee combat gox bi waxuma la caaroy de gox bi yëpp ay génn du caaroy kese mais yow moom instant bi da ngay resté ñaanal kii am koo woo téléphone ne ko wax nañ ma lii wax nañ ma mais moom instant moom combat bu amatee damay jox su may rek ñu dem waaw ndeysaan combat bu amatee fii parce que loolu la la hmm? man seen aj bu mu la déggoolu ma la xanaa man maa la doon may man dama naan dem làmb bu dul hmm? combat ñax dagg sama ticket 10 000 hmm? toog seetaan ba mu jeex tàkk moo mootu xarañ loo mosuma kaa tardé mooy sama mbër dama daan dagg sama ticket bu 10 000 francs toog man bu ñu ma ajee damaa arrangé laa la wax. Mm-hmm. man dama leen doon may sama xaalis maa tax ñu doon fay mbër yi. ngeen la yàlla nga taxee ñu doon fay mbër. ak samay morom ak morom ñeneen ak ñoo tax ñu ñuy fay mbër yi. Mm-hmm, ndax dagg ticket. waaw ok waaw loolu moom dëgg la moom. yow li ngay def nii kan moo tax nga koy def. ah sa bopp ah buñ ko viwul di nga xam. Mm-hmm. da ngay da nga koy dugal ci internet bi. nit xool nga xam ni sa liggéey mi ngi dox. waa noonu la demee si ñun. seen ñun ñoo koy dooleel. bu ñu ajee garaawul quoi dañuy toog sant yàlla. toog xaar sunu bu jeexee rek ñu bëriwaat. waaw loolu la. mais moom man garaawul. à vie déggoo ma la xanaa à vie ak à l'aise sant yàlla loolu du dara. <laughs> looy tàggat. <laughs> waaw sant yàlla rek. Ah. sant yàlla di nuyu gars yi nga xam ni. Hmm. ñoom ñoo ñooñu doon may seen xaalis ci combat ñaq bi. Hmm. muy su mel ni Moussa daaw borom hmm. marché asalem ay Soro Diop. ay njóogu mbaj ay zenga nga xam ni dañuy booleek ay nit ñu baax. ñu ñuy may xaalis. ay ñoom baay Fall tubaa Thiam Jili Mbay nit ku baax Xaadim Rasuul moom du ma ko mus a fàtte daloon doon maye maye man ba ma tiit man. di sant waa Tesoo gi yëpp ak sama booy mafia bi. Mm. waaw su mafia bi Seva bi nga xam ne lu ma leen wax def leen rek. dañuy def. kuréel yow waroo bougé fi nga toog dañuy wax ñuy def rek. waaw di leen bëggee bu wér a wér di bëggee waa koñ bi. di masa coono sama meeru koñ yi nga xam ni ba affaire bi amee ku ne ñëw na sama gaale. Mm-hmm. fekkoo ma fa. kay boos ñàkk yëpp yaa ko jël. di masa waa koñ bi ku si mel ni tànn sama moom aw ma fayam def na lu ne. ngir rek mu ñibbisiwaat sama gaale. maa ngi kay sant di ko gërëm bu baax a baax. di xam ni di sant tamit képp koo xam ne yaa ngi doon jàppale suñu mbër muy ñax maa ngi lay sant di la gërëm. bu gërëm suñu maire yaa xarit saa noxo da siy jàpp sa combat. da siy jàpp bu baax a baax amuñu fayam. suñu yaay la ñu nag moom. avant làmb la woon quoi. avant làmb la mu nekk suñu yaay dañuy gis rek yéen ñu dara ne ñu gaale nga ñëw. mu am lu dund ak yow ah. di ko ñaanal gudd fan ak wér ci quartier bi rek mu yàgg fi mm-hmm. waaw. Mm-hmm. di ko bégewaat nag moom bu baax a baax muy aale ndawaa ndaween la quoi moo tax ma koy sànni xeer naan koo wax dëgg yàlla xale nga mais gis nga mbër yi ñoo leen di def loolu ne parce que mbër yi ñii amuñu seen fay parce que tamit nit koo xam ni lépp la da ngay day risqué sax vie am hmm. ndax yow amuñu seen fay moo tax daal wax yàlla ñoom ak yéen waaw ñoom luñ leen teewul doyul parce que genre aale yii nii hmm. nekkul aale kese da nga ko gis ci yeneen i mbër xam nga da ngeen a sonn daal deen wax rek tamit làmb làmb la rek dangay ngay làmb ba daj amaat nañ nag contentement bu baax a baax que dañ laa wax rek xam nga nga accepté. si woo dara daal di la wax rek xam xam ñoo bokk banlieue quoi ay banlieusards lañ moom moo tax. di la ñaanal jàmm. naan la làmb moom nii la rek kenn ku rek di nga am loo ci dund. mais nag sant yàlla bu baax wax yal na la yàlla defal jàmm. amiin ñu bokk ñun ñëpp ah. Mhm. yéen tamit li na ko yàlla yóbbu fa kawe kawe. waaw ah, di leen waxal ni yow moom nit ku mhm. ah, keroog open press bi xaaroo sax ñu woo la ñëw rek. Mhm. Ah, moo tax ba nga ñëwee rëccu woo ko da nga doon wër si gis nga ko. waaw mhm. sant di sant waa wasaare gaa yëpp di leen bëggee. waaw bas bañ jógee ci aale kii tamit dafa bokk ci ki nga xam te moom mooy staffu ñaq jariñu moom vie ah vie ah, camara waaw ñu bàyyi ko mu sànni ci ay kàddu ñu gis ah, seen bët ñaq jariñu dañ koo acc ah, depuis ba mu jógee ci combat Alioune Seye 2 ba tey ndax gis nañ affaire yu ci am loolu bari gis-gis nga ci am. bon auzu Euh, di profité ci occasion bi di ñaan euh, pandémie bi am fii euh, lii daal ci monde entier bi yàlla tegg ak jàmm sunu mbokk sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew yàlla dogal feebar bi fekk leen foofu di ñaan yàlla tamit yàlla sàmm leen ñi nga xam ne tamit jot nañu ñàkk seen bakkan ci corona bi yàlla yemal ko foofu yàlla delluwaat jàmm ci àdduna loolu laa doon avant tout lancé loolu di ñaan tamit yàlla feebar bi yàlla jëlee fekk ko fii ak jàmm bon ñàkk euh, papam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak bon peut-être euh, du may nekk ci làmb yi lu bëri mais bokk naa ci staff bi ñoo xam ne dañ koy conseiller ak yooyu voilà ci mbiru làmb bon il faut tamit ñu xam leen mooy euh, c'est des jeunes mm-hmm. yoo xam ne nii avant combat dañ ciy sonn di sacrifié wu bàyyi lépp di dundal làmb euh, mu jaral leen lu nekk kon tamit euh, suspension bi damay ne du lu jaadu parce que boo seetee tey jii nii nit boo ñëwee ñu jox la avance ngay def say préparation te ñàkk yàgg na bëre ci làmb musta yàq làmb kon nag bu demee ba toll fii Alioune Seye li ñuy wax mooy boo ñëwee ci làmb nit ñëw ñëwuti loolu yàgg na ci làmb ay jeunes dañuy ñëw di ko di sànnante ay kii bëri na fi mais yooyu yëpp day nekk luy dundal làmb mais doo ñëw ci làmb wóor na la yow mi yow combat bi jekku woo ko nga ñëw di dóore ay supporters daan di yàq làmb bi loolu yoon. waaw CNG ñoom dañ fi nekk ay booy nekk fii booy tamit di dundal làmb di jël seen moyen du ko fa dugal ñi leen di dagg lépp ñu ko fay def. kon yenn erreur yi ndaw bu ñëwee ci làmb ñoom dañoo war a toog joxe avertissement waxtaan ak xale yi dooleel leen surtout situation bi làmb toll fu mu toll nii mais boo jëlee mbër amul lu dul làmb nga jël saison bi nga aj ko yaa ngi dégg mu toog ñaata kii pour bërewaat kooku day metti lu ñu war a def daal mooy nañu toog lépp lu ñuy def tamit ñu toog ñii nga xam ne ñoo kii ŋànk làmb ñu waxtaan nag ñoom mais du ñuy jékki-jékki rek ñëw jël yenn décision dagg euh, euh, suspendre écurie bi léegi ñooñ tamit toog année blanche bul xam kañ la ñuy amaat làmb kon daal man lu ma gis mooy décision bu ñu mënta jël rek dañoo war a toog xalaataat ko bu baax mais du ñu ñëw rek jël sanctionné mbër mu toog ay ati at du bëre mbaa toog une saison toute entière ba ñu bëre kooku tamit nekk na mbir boo xam ne nii war nañ ko seetaat bu baax a baax a baax a baax mi dama ciy profité ci occasion bi xam ne ñun tey jii nii làmb bu ñu am boo xam ne nii tey jii moo mën a lancer suñu culture mooy làmb kon damay ñaan yàlla promoteurs yi fi nekk tamit ñu jàpp ci làmb bu bu baax a baax baax a baax a baax parce que tey jii combien de jeunes ñooy yëngatu ci làmb bi ñaata jeunes ñoo fi am ay licence te ñu bëgg ay di bëgg bëre kon nag nañ leen may seen chance ñoom tamit au moins euh, ñu mën a bëre gën a bëggal làmb bi gën a bëggal seen supporter mais aussi tamit euh, am na benn côté boo xam ne chaque jour dama doon ko ñaan mooy aussi tamit il faut ñu profité tamit yenn mbër yi ñu jàppaleen ci yenn formation yi parce que tamit boo ñëwee toog nga jël benn làmb boo ñëwee nga nga bëre benn làmb boo toogaatee benn moment doo bërewaat day xaw a difficile kon déjà war na am sport business et puis former les jeunes ci mbër yi ci yenn métier nga xam ne même su dee sax jóge nañ ci bëree bi tey ji nañ mën a créer une entreprise créer loo xam ne nii ñoom dinañ ci mën a dund yooyu tamit c'est des choses importantes aussi tamit mbër bi tamit mu war a am benn soutien boo xam ne dañ koy jàppale parce que da ngay gis tey jii nii dans les pays développés da ngay gis benn kii boo xam ne nii benn kenn day nekk ci benn esport mais ci sport boobu même bu ko bàyyee dina am soutien yi ñu koy mais da ngay benn mbër day feebar nekk ci ay tolof mais day mujj day am ay day am ay jafe sax pour mu wër da ngay gis benn mbër mooy mujjee jékki-jékki jël benn somme di ko ci jàppale c'est des choses yoo xam ne nii il faut tamit gars yi ñu xoolaat loolu ñu xoolaat texte bi bu baax a baax a baax wax di wax waa CNG il faut ñu te te beneen politique beneen politique d'emploi boo xam ne nii da nga ciy jàppale mbër bi mais mbër bi day ñëw nekk ci làmb di neexal làmb sonn ci làmb di def lu nekk mu dem benn moment toll ci ay tolof tolof ay jafe-jafe duñ ko xool duñ ko def dara kon nag man je lance un appel. Euh, ci promoteurs yi ak ñi ngànk làmb bi yëpp ñi jàppale les jeunes jeunes yi dañoo choisir pour bëre bëre dafa metti préparation ak physique ak yëpp yi ngay def doo nelaw di jóg fajar di dem géej di entraîner ak yëpp te loo am danga koy def ci préparation bi ñu gën a seet cachet yi gën ko seet nu ñu leen di yokkee dagg yi tamit ñu jëm ko wàññi parce que da ngay dagg ba pare mais li ñuy dagg doo ci gis lenn da ngay dégg rek dagg nañ dagg nañ te doo xam fan la feeñ donc il faut que affaire yi ñu leeral ko bu baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci kaw làmb bi nañu taxawu leeral mbir yëpp mbir bu amee da ngay ñëw jàppale mbër gi laaj ko mais doo ñëw rek nga sanctionné te doo xam ne yow kii moo tooñ wala kële moo tooñ da ngay ñëw rek sanctionné ñoom ñaar ñëpp ñu toog bu ñu toogee ci lan la ñuy jàpp lan la ñuy def kon c'est des choses à revoir vraiment waaw CNG ak ñi ngànk lamb bi yëpp xam nga lamb CNG mi ngi fa mais am na tamit tey jii les porteurs de voix mooy ñoo xam ne tey jii nii fu mu nekk nii nekkuñu CNG mais dañuy wax ci làmb bi di ci am mooy les journalistes ak yooyu ñoo ñëpp dañoo war a taxawal défendre les les jeunes lutteurs voilà ci côté boobu daal bëgg naa aussi tamit ñu gën ci accentuer quoi voilà merci. moom mu nekk euh, bokk ci encadrement wu ñaq jariñu ba pare nekk nijaayam kon donc kooku di jàmbur ci moom ah. muy V Camara ñu koy remercier waat bu baax a baax naan ko kàddu yi am na solo parce que nit tamit euh, soo ko soo ko ŋànkee wala nit tamit soo takkee ci moom rek am na yenn yoo xamante ni wax dëgg yàlla war nga koo kaasal jaadu na macha allah di ko béggeewaat bu baax a baax di béggeewaat nag ñëpp Wassare TV naan leen lépp loon bëgg rek dañ ciy dox ñaq ñaq jariñu actualité la parce que dañ koo acc dañ koo acc di ñaan yàlla rek ñu génnee yëpp daal parce que moom dafa bokk ci làmb te xoromu làmb la te moom daal wax dëgg yàlla bu feccee mu neex bu bëree mu neex te am yoon dañ koy soxla ci moom parce que ñaq moom xëppoo suuf yeeg xam nga ay action yooyu dañ koo soxla ci moom daal ñaq suñu papa Alioune Sarr bàyyi ko rek mu ñëwaat daal ndax xam naa ni kenn ku nekk mérito na chance te yàqul làmb wax dëgg yàlla dafa def loo xamante ni rek yëfu xale la Basirou Diouf sama séeréer bu nice bi boo pare nag nga yóbbu ma fa la ñu war a dem rek ko que jóge na caare ñu foyuwaat rek dem xool keneen ba foo bi jeex rek ñu jógal suñu kër doo ñoo couvre-feu yi daal